waaw Ismaël Madior Fall waxu ko rek pour wax ko bi muy wax tegul woon boppam professeur agrégé mooy wax militant à yu moo doon wax parce que ñiy jàngale droit yëpp ñëpp encore étudiant deuxième année boo leen seetoon tey ne tari leen ñu ne la kenn mënu ko ndax ngoonte moom waxul woon moom moom militant APR yi moo wax parce que lañ ko laaj dañ ko ndax Cissé li muy def ndax mënuñu une sanction présidentielle ndax le président de la république indi ben dans ko la question il ne nécessite pas une sanction présidentielle comme le président de la république lay lay political, mom lay waxal waxon nako néna robbu bëgg mais Serigne Diop nako ko laaj ñi jàng comme moom te mësoon ko nekk mais fi mu jëm nii encore baaxul mais il faut que mu def attention Ismaïla ci fi mu aw yëpp ci àdduna te li ko dal ci ñeenti at yi te mësu ko dal war na taxawaat xoolaat boppam ngoonte moom moom bu jógee pour dàq ko na jàpp ne mu ngi ci faute mu ngi ci erreur Ismaïla waruloo fàtte li nga jàng ba pare jàngale ko nitu nuance nga woon mais léegi tey nitu parti nga